mais dañoo nekk ci jamono boo xam ni bi ñu toll nii Sénégal actuellement damay wax ni boo noppee comme police dañ ni tey bu kii doon jël alalu jàmbur nga gis ko waxoo complice nga tey damay wax kon Sénégal boo noppee complice nga parce que fi réew toll nii te mu wóor la ni am nga ci sa xalaat bu rafet boo xam ni war nga koo mën a wax mais boo ko waxul doon. sëñ bi hmm? da nga bëgg a dugg ci langue politique ah, bi. bi waaw xam nga mooy li ma la wax nag xam nga tey boo ci duggul wala nga am loo war a wax waxoo ko mais lan lañ may wax booba solo bi te ëllëg. parce que gis naa dëgg ma ni du ko wax. jéem anam nga ci bëgg a duggee en dehors de sa analyse yi. waaw da nga bëgg a dugg ci parti politique. da bëgg a faral kenn wala faral xam nga kan faral. ku baax ci Sénégal kuy koo xam ni wóor na ma am na yërmande ci réew mi kooku ma faral naa ko. pour yow mooy kan. ah non mënoo ko wax fii nag xam nga tey xam nga far moom damay wax ci àdduna muy man di yow ak ñi fii yëpp ku ci nekk am na koo xam ne boo ibboon sa xol moo fa waaye du looy fësal mais na fexe ba nga gis ci moom na la ni kii kat yaakaar gi nga am ci moom du tas man loolu